liñu fi dajalé nak xew-xew la xew-xew la boo xam ne na fi muy problème mu découpage mu ngi en 2011 en 2011 ni ñu découpé won xawoon metti ci ñun mu am ay kilifa yu jog di ci def ay démarche nax dañu jëlone genn walé gi yóbbu ko Tivaouane Peulh jël genn walé gi yóbbu ko Jaxaay li nga xamné moy suñu souf ak suñu infrastructure yëpp féete woon Tivaouane Peulh mais yalla yàlla def ak suñu vigilance ñuy dox ba yalla def ah ñu def ci ay démarches ba nga xam ne tey jii bi ñuy redécoupé gis nañ ne lan ñu xañoon delloo ñu nañu ko ba delloowaat ñu suñu mbokk suñuy mbokk nag mooy ñan suñuy mbokk mooy waa Tivaouane Peulh mooy waa ñàgg mm-hmm. boole ci nak wa daaru ciub dañu soxla ñu ñew ñoomit ñu def ni ñu def ndaxte ñun dañoo retrouver suñu limite naturelle suñu suuf yëpp mu ngi teewaan pël kon bu ñu décret bi génnaatee ñu ne ñàkku rab kat fi mu nekk nii delloo nañ ko fële dama ne du ñuy def lu lu kontaan ci si sant bu yàlla yàlla bu baax ndax démb am na conseiller bu amoon ña nga xam ne ñoo fa demoon dama ne ci turu population bi ñoo leen yebaloon ñu dem fa. ba ñu fa demee lañ ko wax ñun ñoo leen ko wax loo waaye nag dañ dégg ne ñoom seen bopp.